la soo xam ne nag ràññee nañ ko lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay amal euh, ñu fas yéene ànd ak moom seet ak moom waxtaan soxna si euh, Mbacké Balla ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi ma la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay topp ci 24actu point com. bisimilah rahmaani rahiim. non bu ñu sant yàlla li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaat Sëriñ Tuubaa Mbacké mi suñu yaakaar tey ak ëllëg di yeesalaat bu baax suñu njébal ci ma Massamba mi suñu bunt ci Sëriñ Tuubaa nuyoo jullit ak moromam jullitam muy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mhm. Euh, ñu ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm ci nuyoo bu am solo boobu ñu bëggoon nga dellusiwaat tamit euh, bi ak ahlu moo tax ahlu ak liggéey bi fi ñu nag moom fédération la boo xam ne dafa lëkkale daayira Maam Jaara waaye base bi nag mooy ahlu café ndax kafe gi moom lañ ko tàmbalee ndax soxna Aysatu Gaawaan bintu Sëriñ Tuubaa moo ma yaroon. ci boo may ndaw joxoon ma secret café gi ñu nekk di liggéey ci café gi nag bi may ndaw ba léegi équipe daara yi daayira Maam Jaara mu nekk fédération boo xam ne internationale la mu lëkkale 180 daayira fédération Maam Jaara bi ñu tuddee ko fédération Ahlu Café Touba. Euh, ci euh, gi. nag moom bépp xew-xew bu xew ci yoonu Mouride te ñu ko dinañ tàngal café def ko addee Serigne Touba. même bu dee ci yeneen tariixa yi man ni woon ay Njaasaan nag ay Laayeen yeeg yëpp lépp xew-xew bu ñu ci yëgal rek dinañ def café gi dama yóbbu ko def ko addee Serigne Touba ren jii rek Tiwaawoon liggéey na bu am solo. Mm-hmm. kan ngeen koy jëlee da ngeen am wala dafa am ñuy waaw ay daayira la dañuy cotiser waaye ñun suñu alal ñun dañ koo jaayante woon ñun lépp loo xam ne am nañ ko ci àdduna rek café lay jar ñu jox ko Mouride Serigne Touba yi def googu ñu ko def nag rëccuwuñ ko ndax tax na yitte bu ñu am rek Serigne Touba dinañu ko fajal mhm. waaye ñun suñu alal du jar lenn lu dul café ak suukar ñu jox ko taalibe Serigne Touba yi mhm. ndax daayira bi ci café gi kese la yem wala am na yeneen activité yu ngeen def. déedéet daayira bi ñun dañuy bernde café gi mooy base bi waaye bépp bernde bu ñuy def rek ñun dañ koy def waaw bépp bernde boo xam ne dañ koy xéwloo rek waa ahlu café dañ koy joxe ba ci lii nga ñu fekk tey nii rek benn la ci bernde yi ak ndog yi ñu def ci koor gi ak yeneen ak yeneen yu mel noonu. est-ce que a ngi xalaat ak liggéey bi fi ngeen ci toll tey ngeen am benn usine boo xam ne di euh, ko defee ngeen di mën euh, di gën a euh, lawal liggéey bi. waaw yooyu yëpp ñu ngi ci ndax fédération boo xam ne internationale xam nga li ñuy mbébét rëy na dafa am liggéey togg gu ñuy togg nag te ñoragut waaye xalaat nañ am ay usine kafe ak lépp li nga xam dañ koy jëme ci bernde ñun ñu koy liggéeyal suñu bopp. ñu ñëw ci liggéey bi xam ne moom ngeen tàmbali Euh, mu mel ni itam euh, café xëy na ñàkkul euh, benn secret boo xam ne am nga ko wala loo xam ne xëy ci loo xam ne yaa ko dund sa bopp nga baaxee ko. waaw café moom alali Sëriñ Tuubaa la ndax Sëriñ Tuubaa bi muy jógee ci géej gi café rek la fa indi Sëriñ bi ko tubaab bi naree faagaagal la la ca nekk suñu borom ma ko ko ca defal yabal Seydina Jibril mu yóbbul ko ko. ba ko naanee ñu waroon def ne su ko naanee day ñàkk bakkanam mu ñaan ko suñ suñ yàlla yokk ko wér yokk ko kàttan. ba pare nag jox ko ko nag defal ko ci saayir ak baatam indil ñu ko bi muy jógee Gabon sëri ca mhm. nga xam ne ñun café Touba mooy suñu saafara mooy suñu docteur mhm. suñu amee naqar mooy ñuy giifal suñu amee bànneex moom la ñuy ànd suñu feebaree moom la ñuy fajor mhm. ci lu wér nag kon daal café gi bu weesoo naan gi am na ay euh, baatin la mooy suñu naan gi gën a riis suñu te suñu baatin la moom lépp lu ñuy saafara woon rek Sëñ Tuubaa defal nañu ko ci café gi ndax nim nim nim ñu defal xasida yi noonu la ñuy defal café gi bàyyil ñu fi mu nekk lu am solo euh, ñu nekk nag euh, ci jamono joo xam ne jàngoroy Covid 19 euh, sonal na daanaka àdduna bi rawatina fi mu toll nii ñu gis tamit liggéey bu am solo boo xam ne yéen a ko ci amal muy ay reer yoo xam ne da ngeen koy togg fan ngeen koy jëmee ak lu tax. waaw Covid 19 bi mu ñëwee sonal doomu aadama yi dugg biir Touba tamit ñu jox ñu ci liggéey bu am solo ndax médecins yi 40 médecins yi nga xam dañoo ñëw ci Touba président yebal leen fi. ñun lañ ñun ñoo leen yor ñoo leen di toggal ba pare fañ nekk tamit ñoo yor bi waaw ci loolu nag lañ xalaate ni war ñoo mën a defaat beneen liggéey bu dul bokk comme ñun dañ ñoo xamee woon ci yëngu Ahlu Café Touba xamewuñ ko ci toog suba guñ xëyee dañ tànn am programme te gis nañ ne dongay daara yi sonn nañ coono boo xam ne ñun war nañ leen a mën a jàppale ndax fédération bi mate na ko te mbooloo mi tamit mën nañ ko ñu ne nañuy defal ay reer def ko ci anam ku sell defe ko ni ñu ko kër docteur digale saytu ko ba mu sell ñu àmbale ko def ko ci ay barket topp daara di leen ko jox par benn nga xam ne du duñ yor génn ci guddi gi diñ mën a yolwaane te dem gi ñuy dem it waxtaan nañ ci kilifa yëpp ba am cee ndigal ba ci commissaire sax waxtaan nañ ci moom ba defal ñu autorisation ba heure bu ñu neexee dinañ mën a jóg en même temps tamit police yi nga dañ leen di joxal ay reer voilà euh, mu nekk loon ci jamono joo xam ne askan wi sonn nañu lool euh, soxla ko euh, fi mu toll ban message ngay lancé jëmale ko ci jàngoro jeeg askan wi ak taxawaay biñ ci war a amee xanaa rek di jëfandikoo rek bu ñu jiitalee ñaan yi ndax ñaan mooy ngànnaay jullit jàng alxuraan jàng xasida jaamu yàlla jullit tuub ndax dañoo toll ci waxtu tuub dellu ci yàlla ndax yàlla moo amul ci tey soxla heure boo be mu jéggal la ndax démb bu wéy na suba ñëwagu tey rek moo la war nañ tuub dellu ci yàlla te yeesluwaat bu baax a baax buñ defee loolu ba noppi nag ñu boole ci ndigali kër docteur yi di raxasoo saabu ba set heure buñ génnee di takk ay masque di takk ay gants tey moytandiku mbooloo dajaloo bu bari bi ñu koy moytandiku loolu suñ ko defee daal dinañ ci mucc ndax fagaru moo fajo faju te xam ngeen ne adduna bi nit ñi sonn nañ ku nekk ñi ngi wax ñi ngi génn ci télévision yi di wax di génn ci rajo yi di wax di digal askan wi ñuy moytandiku ndax jàngoro ji kat walaale kenn laal na ñëpp kon war nañoo mën a daw suñ kamtulaay kat ginnaaw bu ñu jiitalee ñaan yi ba pare ñu mën a daw nag mhm. jëfee ndigali kat docteur yi yi ñu digal mhm. ñu def ko ndax ñu man cee mucc mhm. waaw mu nekk lu am solo euh, ñu gis ne itam ku ne soxna Mame Issa Mbacké euh, ne Sarsara ndax liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, yéen a ko fay amal fi mu toll nii fan ngeen ci toll ak lan la ñu mën a yi ci Sarsara waaw Sarsara nag bu woon nag jàngoro ji ren fekk heure bi période bi rek fekkoon nañu war ko waajal def ay appel def ay communiqué waaye ren xam nañ ne dakkal nañ bépp xew-xew yi war a am ci at mi dakkal nañ ko waaye nag xanaa ñu fa yéene ñaan rek ba jàngoro jeex ak jàmm ñu waajalaat ko déwén ndax bii di ñëw ma Masamba lañ ko tudde woon te waajaloon nañ ko waaj bari boo doon def ay karawaan ak yëpp mhm. man dañ ci daan def karawaan bitim réew bu ma fa ñëw ñu def ko ci région yëpp waaye yàlla dogal na ngànta am na dogal na ngant ñu bàyyi ba déwén ak jàmm ñaan fekke ko mhm. ndax suñu bisub sëñ ma sàmba boobu lu rëy la mhm. ndax bañ ko dalee dem ba léegi ñu ngi koy doole tudde sama maam sëñ na sàmba mhm. moo tax ren moom waajaloon nañ ko dañ noonu da noonte da daan nañ ko waajal sax waaye ren waajtaay bi moo gënoon a màgg waaye loolu la si yàlla dogal Sarsara na doon na béréb boo xam ne béréb bu sell la boo xam ne Sëriñ Tuubaa fa la gisee woon ak yonent bi sallallahu alayhi si lu dul ay nelaw mu jox ko wérdu maa xam bismillah foofu la taxawale yoonu murit foofu mooy béréb bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ne illal lasina la zarsaara xat xasado siyaarati faarixu daaray na wasaara mu ne ku ma fa fekk de tàggoo nga ak bàkkaaru àdduna ak bàkkaaru àllaaxira moo tax mu jara dem ñu ngi ci lancé appen di ci woo ñëpp saa su ñëwatee na ñëpp dem ndax luy tàggal nit ak bàkkaar ka jar na sol daal di weñ te daw ba Mbacké tey moo nekkoon suñu si ma bàyyi la rek nga tàggoo ñu la ngi leen sant bu baax sant personnel bu baax El Hadj Ousseynou ñu ngi lay sant yow mi fi ñëw tey ah, am nañ ci mbégte lool di ñaan rek ñu góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla rek ak liggéeyal Serigne Touba rek ak muñ ndax ci jamono jooju lay toll toujours maa ngi koy wax di ko répété waat di ko répété waat rek rawatina nag ñun jigéen ñi nañ gën a góorgóorlu ci sàmmonteeg li nga xam moom la ñuy tere di def ndigal yi ñu kër docteur di def ñaan yi ko defee daal dinañ ci mucc kon dinañ am jàmm àdduna ak àllaaxira maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ku fi teew rek yàlla na yàlla faj si aajo wa aaxiru da'waanaa an alhamdulillahi rabbil li nga xam ne moom moom lañ toll nii mooy euh, bi ñu xamee ne couvre-feu bi tàmbali na donga yi mënuñu dem di yalwaani soxna si dafa am initiative ñuy togg reer di ko yot sëriñu daara yi tey mooy suñu cinquième jour boo xam ne def nañ ko e, bés bu set tam e, liggéey bi day gën di yokku waaye itam dañ koy gën tam di ko dëppaleeg jamono ndax donga yi itam ku fay dem da ngaa war leen a jox respect bi ñu yeyoo ndax ñooy jàng alxuraan te yonent bi ne na xayrukum man ta'allama alxuraan wa allamahu moo tax togg yi dañ koy def ba mu sell ñu àmbale ko ñi nga xam ne ñoo koy defar ñëpp tam dañuy wàccoog ndigal yi nga xam ne moom la docteur yi joxe ndax loolu lislaam moo ko njëkk a a teg ci oto bi nag e, juróom-ñaari daara wala juróom-ñett wala juróom-ñeent wala fukk sans départ ci liñ togg ni mu toll ak daara yi ñuy dem suñu àggee tam dañuy xool sëriñ daara bi ñi muy jàngal nu ñu toll ñu wàcce leen ay boîte yu toll noonu am na tam yoo xam ne dañ ko defar spécialement ngir sëriñu daara yi su ko defee tam bu dee ñaari sëriñu daara ñoo fay jàngale wala ñett ñoo fay jàngale ñu jox leen ko bi ñu tàmbulee ak léegi defagun nañu lu tollook euh, fanweeri daara yu tegal waaye li nga xam ne moom lañ joxagun ci ay dongo mi ngi toll ci junniy dongo yu teg tuuti yoo xam ne jox nañ leen ndax bët bu set danañ defar lu man ñetti téeméeri boîte wala ñetti téeméeri li koy manqué du bari te booba ak léegi juróomi fan yi tey la dañ koy continuer nag gi tam bu ñëwee incha allah dañ koy continuer kon euh, tàmbale nañ ko juróomi fan ci ginnaaw danañ ko wéyal ba weeru baraxlu wi jeex waaye biir koor gi tam dana nekk programme spécial boo xam ne dañuy continuer liggéey boobu loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñuy def jublu ci nag rek euh, infaax te infaax moom kenn ku nekk xam na njëriñam ndax sëñ Tuubaa am na ñetti jaamu yàlla xam boole nañ jaamu yàlla yëpp muy dundale ak ak jokk ak bokk kon nag ñu ngi ñaan yàlla nangu liggéey te képp ku ci tàbbal sa alal suñu borom defal la tawfeex soxna si nga xam ne tam moo am yéene bi ngir liggéeyal Serigne Touba yàlla may ko gudd fan ak wér ak ñu ko sant di leen a baax di ñaan yàlla mu defal ñu euh, euh, bi nga xam ne euh, moom la ñu amal ñu àndoon xam ne yëkkati ko sant bu baax di ko gërëm ci woyof yi nga xam ne am na ko ba dalal ñu tey fii ñu mën a waxtaan ak moom sant bu baax Serigne Mokhtar Kane ndongal ndonga yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom tam mi ngi koy def euh, sant Serigne Daaw dañu nekkoon ci caméra bi feggoo nag soxna Asou si la sant mboolem euh, kuréel bi nga xam ne ñoo nekkee ci kër gi di leen jox daje incha allah euh, yeneen jotaay xibaar sant Seck yi ñu monte jotaay yi jërë ngeen jëf